ñu koy wooyee albaytu zawjiya wala alxayaat azawjiya mooy néegu sëy ak dundin ci biir sëy loolu nag dana làmboo kenn ku nekk ci concernant yi muy xam la ko war ci moroomam ci yomb yomb ak ci jafe-jafe yan droit la am lan mooy devoiram moo xam ci góor gi moo xam ci jigéen ji mën naa sëmbartal ba ñëw ci sax doom yi première bind biñ ci am ànd ak yéen ci studio bi ak liggéey bu bees bi niñ ko bëgg a doxalaatee ad darsul awal tey dina nekk ihtimaam ihtimaamul islaam bi takwinil usra mooy première bindu tey bi ñu ngi sàkku ci mbokk yépp nag rawatina jigéen ñi ak góor ñi ñu koy bàyyi xel ndax dafay làmboowaale ay conseil dafay làmboowaale lu bare bare bare bare mbokk yi islaam itte bu mu ittewoo ci organiser une famille en islam xam ngeen ni islaam dafa jox famille cër wu mag a mag bu nu waxee famille nag dafay tënku ci góor bi nga xam ni mooy boroom kër mooy jëkkër mooy baay ak jigéen ji nga xam ni mooy jom suudu ci pulaar mooy yaay ak njaboot gi islaam dafa bëgg ñu organiser wu ñoom ñaar ngir seen ànd nekk àndandoo bu dëgër ngir ñu mën a pré préparation boo xamante ni kër gi dana dëgër dana baax dana làmboo ragal yàlla kon loolu nga xamante ni moom lañuy ñuy une famille dafa tënku ci ay charte ci ñetti mbir bi ci jiitu moom mooy al ixtiyaaru saxiix li kullin min az-zawjayn maanaam jëkkër ji ak jabar ji kenn ku nekk dafa war a tànn tànn bu jaar yoon sa morom maanaam góor gi buy tànn soxna dafa am nu mu ko war a tànnee jigéen ji buy tànn jëkkër da ko war a tànn kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar islaam dalaa sas nga tànn sa moroom sa compagnon nga bëgg ko nopp ko waaye critères yi islaam jàngale dafa bëgg nga sàmm ko ku góor ki sàmm ko ku jigéen ki sàmm ko lu ko moy bu erreur amee ci kenn ci ñoom ñaar rek mooy fondation kër gi dana daar maanaam góor gi bu jiitalee bakkan ci tànn wala jigen di jital bakkan ci tànn lalee wuñ ko ragal yàlla sëy bobu to wutar ci ay problème lay dëkk ñaarel bi moy al muasharatu bil ma'ruf ànd ci àndin bu rafet ci diggante góor gi ak jigen gi manam bayna kullin minha ku nekk day fasiyene def njek jëm ci moromam ndax kat wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin borom bi nee na rafetal leen jekkal leen ndax yàlla dafa bëgg ñiy rafetal di def njekk borom bi ne waa aachiruhunna bil maaruf yéen góor ñi yore leen seeni jabar ci àndaale bu ànd ak njekk ci respe ci ragal yàlla ci notoriété waaye ci xam kenn ku nekk ci ñoom ñaar ay defa moroomam su jigéen ji xamee àqam taxaw ci góor gi xam àqam taxaw ci ku nekk góor góorlu ba say àq nga jéem koo sàmm te am yoo bàyyi ànd bi dana jaar yoon ñetteel bi mooy almawaddatu wa rahma kër gi ñu war a tabax dafa war a lalu ci mbëggeel ak yërmande maanaam mbëggeel na am góor gi na bëgg ku jigéen ki waaye ku jigéen ki it na bëgg ku góor ki maanaam muy nobeel maanaam kenn ku nekk li la war ci sa morom nobel mbëggeel ci côté jigéen ji jonge ci côté góor gi mokk su ko defee loolu mooy almawaddatu war rahma kenn ku nekk da koy ëmbal moromam góor gi day nopp jigéen ji ëmbal ko yërmande jigéen ji nopp góor gi ëmbal ko yërmande su ko defee loolu moom mooy tax sëy bi nek association bo xamanteni bu dëgër la lol lol motax walu sëy borom bi daf ñoo wax ni dafa bok ci keman yi nga xamni tuddu nako ci alquran ne wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayat borom bi nee na taala wa bokk na ci ay kéemtaanam mu defal leen ay soxna yéen góor ñi utal leen ay jëkkër yéen jigéen ñi pour ngeen dal maanaam góor gi bu liggéey ba ñëw ñëw fekk soxna su koy dalal jigéen ji su demee marché ba ñëw wala mu xaar jëkkëram fekk borom këram di ko dalal kenn ku nekk dangay dalal sa moroom soulager ko wan ko nobel wan ko mbëggeel wan ko cofeel wan ko ragal yàlla kon mbokk yu jonge ak nobel ci islaam lanu ko xamee keneen ku ko jël ci nga koy jëlee kon borom bi dafa jël ñaar yooyu séddale leen ko wa jaala baynakum mawaddatan warax ma yàlla nee na yow ku góor gi yàkku jigéen ki dama def ci seen diggante cofeel ak yërmënde nobeel ak yërmande jonge ak yërmande ci góor gi ak ci jigéen ji acte yi wane mbëggeel ak nobeel jigéen ji da koy jouer waaye acte yi wane mbëggeel ak nobeel góor gi da koy jouer góor gi munta nekk benn objet rek taxaw ñu naan ko dama laa bëgg dama laa nopp moom mu ne sëmm foog ni mbir mi lu ñu war a taxaw la jigéen ji rek war a def yooyu kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar dafa war a dox war a dox jëm ci mawadda góor gi na dox jëm ci jigéen ji dox jëm ci malheureusement bu ñu seetloo dañuy fekk ne yeneen société yi dul jullit ñoom ñoo gën a sàmmoo loolu da nga fekk ci biir sëy ñu dul julit jigen ji leeg di wax borom kërëm nop naa la bëgg naa la góor gi di ko wax léeg-léeg góor gi day indi fleur indi la muy jox jabaram di ko wan toujours di ko présenté mbëggeelam jigéen ji di yëg boppam góor gi di yëg boppam kon su boobaa loolu borom bi nee na da koo def ci biir sëy wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma kon yàlla nee na dafa dugal seen biir yërmande ak cofeel borom bi ba tey wax ñu ne ñu te foofu laay jeexalee hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna seen sëy yéen ñaar bu yeboo rek nga jàpp ne yow jigéen ji yaay yérey góor gi yow góor gi yaay yérey ku jigéen gi maanaam su ma ko mënoon a misaal damay wax ni yow góor gi tay baas bi jigéen ji sol yaa koy sol robb bi muy sol yaa koy sol li muy sol ci yére ndeke yére yi muy sol du yéreem say yére lay sol waaye yow jigéen ji xaftaan bi góor gi sol la muy sol yaa koy sol kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa yére moroom ngay sox mooy hunna libaasun lakum jigéen ñi ay yére lañu pour góor ñi mooy sutura lañ kon jigéen ji bu bëggee kër gi neex kër gi barkeel day am sutura góor gi bu bëggee kër gi neex kër gi barkeel day am sutura loolu mooy sunu bind bu njëkk mbokk yi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ki doon jotaay ak yéen mooy seen mbokk Umar Ahmad Sall salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu